nee sama papa daf maa jàngaloon ni ma bala dem fenn nee na nga dem ziyaare ji Touba nee ziyaare xalifa ba fa nekk nee loolu nag sama papa ma ko jàngal de. nee mu wax ma ni ma. nee Abdoulaye munu ko naa munu ko munu ma laa def président de la république de. waaye nag danaa la teg ci yoon woo xam ne boo ko wàcculee di nga nekk président de la république ne yaakaar naa ne nag loolu am na ne looloo tax ne am na ñu baari li nu am xamuñu fu ñu ko jële waaye man Ablaye mii toog li ma am xam naa fi ma ko jële de ne xam naa ne lii ma yàlla jox sëñ Bamba rek laa ko jëlee ne moo taxit ne musuma am benn njàqare ne xale bi fi jaar yëpp ne samay sëriñ lañu waaye samay xarit lañu ne samay sëriñ lañu waaye samay xarit lañu ne ñi fi jaar ñëpp nee ba tey ji nee sëriñ Muntaxa mii toog nee sëriñ Muntaxa nee ba mu daataan a nekk xalif nee dama ko daan ziyaare di toog ak moom nii nee mu won ma cofee ji ma bëggee nee ba ñëpp it xam ko nee kon sama ñëw fii tey nee warta jaaxal kenn nee dafa nekk nag lu ma war a def nee muy sama waru nee mu nekk it sama intérêt nee xam naa ni tànk maa ngi ñëw fii nee maam Cheikh Ahmad Bamba dina ma protéger nee dina ma dimbale ci lépp lu ma bëgg nee fii ma toll nag. ne fa tabaarakala fii ma toll ma dem yàlla dogal ma ma dem ci niveau bi tiim ñépp ne bu ma yeggee ba foofu ne di président de la république ne mënatuma am ci zahir ne lu ko féete kaw ne man kay léegi tollatuma fu may demee ci benn sëriñ ka naan ko ñaanal ma ma den président de la république nee ndax yàlla defal na ma ko ba pare nee kon kay man Abdoulaye su may ñaan leneen lay ñaan nee wax naa ni nee bëgg naa bu kenn damm bant nee bëgg naa bu mu am benn xeex nee bëgg naa bu mu am benn violence nee loolu wax naa ko ca Ndakaaru démb nee ak li namm nee li teeru fii nee man de musuma koo gis nee teeru nañ ma ba tàyyi waaye musuma koo gis nee xam naa ne ñooñu nee du Ablaye Wade rek leen fendi de nee dafa am lu ko jiitu nee mooy maam Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul ñaan gi nee ak barkeeb nee ak fa tabarakallah ak waajur yi fi jiitu woon ak sëñ mu mi toog ak sëñ Muntaxa mi ne man damay faral di wax buy bis bu nekk di ko répété naan li ma am xam naa fi ma ko jële ne lii nag jeexal naa ci ne président dafa wax ne dafa am soxlay boppam ne bëgg naa nag fa tabaarakalaw ñaan sëriñ bi ngir ma gisante ak moom ne te kenn du ci bokk te mu dee jaal Cheikh Sidi Mokhtar di ñaan sunu